ren nag xam naa ni war nañoo dem nag euh, Makatal Mukarama bu ñu fa jugee rek. Euh, incha allah aji bu daayee laay ji de daa di tàkkar naa si. nuyu bu baax sama mère Sénégal aji boobu bi léegi mu yegg si. Mhm. Euh, le 21. le 21 février le 21 na. balaa boobu bu fekkoon nga am fi ñaari mbapat yoo xamante ni benn bu ne lu mu gàtt gàtt mën nañ cee lekk. yaa ciy sonn ndax bind bi nga war a bind. <laughs> bind yi nga war a bind ak cubikaay yi nga war a <laughs> yaa ma nar a gën a sonn yow man boo xam ne lu mu gàtt gàtt dañ ci am 2 millions na ko mën cee mën cee maa bëri feem de feem de mbaa du doo fi say la ñëw jaar fa ci mbapat bi allah ji man may fo nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñu si état alaaji boo jékkoo del baale <laughs> rawatina dafa mel ni Oustaz nan na laa jàpp waaw waaw xam nga maa ko daan jàpp ci point wax stratégie bi <laughs> temps njaga kay semaine bi am nga problème yàlla boo bañee ñëw aljuma ba nga xam ne doo tontu <laughs> doo tontu temps ci yow ñuñu euh, nga xamante ne ñi yi di ñu seetaan yàlla na yàlla gaaw ubbi leen buntu yi ndax ñun ñooy seen ay wéttal waaye ñi nga xam dañoo tawat itam nekk ci hôpital yi mbaa ñu koy woo yàlla yàlla na yàlla saafara leen maa ngi nuyu bu baax euh, ki nga xamante ni mooy borom Aquatera Mamadou Yatasaay ak sunu wayjur wu jigéen woowu nga xamante ni euh, mooy sunu yaay ma Marema Saw taalibe Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu di wayjuram bu jigéen Mbay Joob Jamil maa ngi koy nuyu ko ziar baax Ablaye Ndiaye bu yéen mantu sama benn rakk nag laabi bi nga xam ne daanaka euh, fu bari fu may dem yàlla day def ñu ànd mu nekk kenn ci man bés bi nga xamante ni mu ngi koy def géejuwaay incha allah le 12 novembre la ca Gunaas di spécial Cheikh Seydil Hadji Malick Sy laa bi Aziz maa ngi ci woo képp koo xamante ni rek soppee oustaz Mouhamed nga mbay nga incha mm. allah samedi boobu di le 12 novembre maa ngi ci laaj bi ñu waxtaanee Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy Abdoulaye Ndiaye moo koy woy mantu nuyoo baa ngi noonu. incha allah ñu dem ceeg jàmm junior sama rakku bopp joyeux anniversaire nuyu na waa Canada yëpp ak sa yaay ak ñëpp ak njaboot gi ak monsieur Ba maa ngi la ñaanal gudd fan gu ànd ak wér xéewal gu saaban baawaan ak sutura fal ñu dem ci élément bi. ayca ñu dem seetaan élément bi ñu dem xool suñu élément ñëwaat. waaw maa ngi géej waa maa ngi logé fële ca sama soxna moo fa nekk ak euh, xale boobu ma lay wax noonu. xale bi mu doon fi yow indi fi xale bi sama sama rakk na baay. waaw ok waaw. ni mu ko fay ñoom pour ko rek hôpital Fann la lay fajoo quoi. Mm-hmm. ba léegi nii maanaam sous traitement la nekk quoi maanaam ba lay paree guñ ci. Mm-hmm. mais un na nag benn waay boo xamante ne dafa nekk ci birig boobu. Mm-hmm. ci birig dafa am nekk am nekk ci biir commande day liggéey di wàcc. day liggéey di wàcc a lay def. waaw benn waay moo ko hébergé foofu ci biti bi quoi. Mhm. un jour nag moo dafa xaar. Mhm. ba moom prévu xam naa. Euh, boobu sama jour jour boobu sama sama sama soxna nekk ko fa dafa dem poste rek quoi ci magam bu jigéen. Mhm. ndax daa feebar mu di ma nekkoon rek ñu ne kii na dem jàppale ko quoi. comme ça euh, léegi man maa ngi fi géej waay. de tout le temps laay dem Yaraax. jour boobu nag la profité ñëw menacé booy bi di couteau à la main yegg ci moom. filmé waale ko yóbbaale vidéo yi. Mhm. yegguñ ci dara te ñu ci yegg dara daal maanaam man nag da ko menacé ci vidéo yi mu yoroon quoi. Mhm. comme que kii nii saa ko saa yu ko saa yu ko soxlaa mu ñëw mu ñëw euh, tëddee ko xale bi nag ñun gaaw ji xam dara ñu ñu ko xamee mooy. Hmm? Mhm. ni ko xamee mooy un jour ko bett xale bi quoi léegi nag ndekete jour boobu bi ñu ko bettee moom xale bi. waaw da ko doon wan ak vidéo maanaam bu nanguwul mu tas ko ci réseaux sociaux yi. ok kan moo ko filmé. ki ko filmé moo ko filmé ba baal vidéo yi. moo filmé xale bi. moo filmé xale bi ba baal vidéo xale bu ndaw la treize ans et demi la ba pare naan ko soo nanguwul ma ma publier vidéo bi. ma publier vidéo ñii nii que instant bii que xaw ma ñaata personne ñëwul vidéo. publier na yor na ko. ah vidéo bi vidéo bi ko partagé. partagé nañ ko am na xam ni que xaw ma ñaata personne ko man vocal am yëpp maa ngi mu ngi ci am preuve yëpp maa ngi mu ngi ni yor ay vocal am wax na ni mu ko defee wax na ko man kay preuve lan laa leer nañ laa yore. waaw nee na vidéo yi dinaa ko tax ci réseaux sociaux yi te sax yaay sax dinaa ko fexe ba am numéro sax yónnee ko mu seetaan comme télé. vocal yëpp mu ngi sama biir téléphone fii. waa ji moo la wax loolu waa ji moo la wax loolu. waa ji moo wax loolu moo wax ci gémmiñam. ok. mu mu wax ci gémmiñam mu ngi nii yor bi de nii nii waaw. léegi bu ñu woowee xale bi nag ñu daal koy laaj ndax noonu la demee. non dama ni moom mu yónnee la ay vidéo quoi. Ah, waaw merci non non mooy audio la de ay audio de. dañuy menacé quoi naan faalewuma leen ragaluma leen man fi ma jaar jaaroo leen fa. waaw loolu laa ci audio audio yëpp ma lay woowee nii. comme pré bu leer nañ. mais mu defee fee yëpp moom mu ngi koy wax fii nee na yéen maanaam eh, benn audio bi sax mu ngi ci naan yéen am naa li ma bëggoon. dégg naa ci yow amatoo benn valeur dige mënutuma jaar jaar dige ma sax. nii la ko ji ñaata at la am. Ah, waa ji am na plus de trente ans jabar jabar am na jabar ci doom plus de trente am nii moom violé xale bi. confirmé na ko ma la vocal bu baa ngi fi mu ngi mu vocal boobu moo moo moo tënk lépp moo ne am naa li ma bëggoon. waaw vocal la moom nii nii mu sama mu ne am naa ma bëggoon yegg xanaa da doon génn ak yegg naa ci yow kay c'est fini. xanaa xanaa da doon génn ak moom. ah. da doon génn ak xale bi da doon doxaan xale bi. non moom génn ah c'est pas man parce man maa ngi géej ak di tout le laa fay dem maanaam comme ni ma ko waxee sànq nii maanaam bitig boobu mu nekk noonu. waaw dafa am nekk ci biir nee na ki ko hébergé doomu tantam la moom mécanicien lay def postaro postaro fii lay liggéeyee. treize ans waaw demi xale bu jigéen la sama rakk la. moom ci bitig bi lay fanaan yow foofu eh, la ko violé tamit ci bitig bi la nekk la nekk. ci bitig bi la doon fanaan waaw. ñoom ñaar lu ñu bokk day liggéey maanaam xam nga mécanicien lay def. waaw bu liggéeyee maanaam xale bi xale bi day liggéey bu wàccee ñëw fanaan bi. maanaam moom ma waaw xam nga mécanicien lay mécanicien lay def. xale bu doomu tantal moom moo ko hébergé foofu moom moo ko ñaama moom moo moom da ko hébergé foofu foo la daan fanaan maa yàgg na d'accord naa ah, da daan da daan jógee ci bitig bi ñëw ñëw ñëw fekk la ci sa biir yenn mm-hmm. foofu yëpp du fekk man sama jabar kese la daan fekk parfois quoi sama jabar ne ko waaye lii bu fi bu fi jëm la sama biir nekk interdit naa fi kenn ku fi ne ñu ku nekk si nekk bopp fi bu fi yónnoote ndax xale bi lu tax xale bi première fois du ko boo ko defaate ma wax bi première fois demu fa euh, euh, hmm? kalaamewu ko kalaamewu ko lu tax kalaamewu ko bi mu ko njëkkee def ñu ko njëkkee def mu maanaam di ko menacé si vidéo yi naan ko boo waxee dama ah, xam nga dèjà bu mu yëg si moom ne di ko menacé di kutaala may de un léegi nag de mën a ko tamit vidéo yi nii boo waxee rek damay tas ci réseaux sociaux yi ñëpp daal lay gis te fu ma toog tamit naa wane vidéo yi tamit ñu daal lay seetaan moom ci lii la tiit nag waxuñu dara eh, eh, xale bu góor bi ana jabaram ñoo mu fay demee xale bu góor bi ana jabaram jabaram xale bu góor bi no xamul jabar ndax mu ngi fi nekku fi daal mais gi ñu am na jabar ki non yéen a bokk benn kër ndax kër gi ndax kër gi mu nekk jabar gi moom ngi fa non jabar nekku fa moom nekku fa ok bi ngeen demee bi ngeen demee police wala gendarmerie bi ngeen demee police wala lan lañ leen wax léegi nag ñun dañoo dem euh, ba pare man bi ma jéegi maanaam bi jour bi may biñ ko bettee moo xale bi jour bi ñu ko menacé pour déedéet ak moom deuxième fois xam naa. waaw mu daal di kii ma ma man damaa damaa dem directement jël xale bi yóbbu ko si hôpital xool ko ba xam yëg na ci wala yëguñ ci moom. loolu hôpital waaw parce que loolu hôpital ko nag. Mhm. ñu ne ko bu ñu ko xoolee. Mhm. ba pare nga ah hôpital na bu mag. waaw mhm. ah, ñu seet ko foofu ñu ne waa effectivement noonu la demee. ñun balaa ñu fay dem nag dem jot nañoo dem gendarmerie ba pare. waaw ñu réclame ñu wax ñu wax leen ñu daañu antan ñun ñëpp. Mm-hmm. après nañu ne leen na leen toog dégul leen. dégg nga temps boobu nag xale bi xale bu góor bi mu ngi doon fanaan bi biir ba quoi mais nag ci diggante bi ki ko hébergé woon nag jabaram dafa dafa jóge dëkk ba ñëw. dafa jóge dëkk ba ñëw mu daal di ñëw nag mu ne ko léegi comme sama jabar ñëw na naa la wutal feneen fu fanaan ne boo ko defee convocation day daw te boo ko defee bu ndaw rek day daw parce que xam ne lu na ñuy jaaxa ba jaaxaat nag biñ demee gendarmerie ba léegi nag ñu ñuy toog dara xewul waa ji gën jàpp waaw loolu moo ñu jaaxal nag te gendarmerie tam waxuñu dara lu leer maanaam ci lii lañ toll wala lii lañ jot a def ah amul lenn lu ñu wax daal mais comme comme ça comme comme kaa que ni dara xewutul léegi daal. xale la bu am 13 ans boo xam ne euh, dañu ko euh, violé euh, ba pare daal di def vidéo keroon nag polémique bi mhm. xawoon na bari sama diggante ak Fall ak sama yaay Adja Ndak ci preuve mhm. parce que nag preuve loo mën ci waxit moom mooy mbir mi mhm. te je pense que vidéo weesu na preuve mais nag vidéo ci kaw ñu xam ñu gis kanam gi te vidéo nag mënoo ko recevoir tribunal mais nag buñ ko amee pour nag jël nit ki inculper ko war naa mën a nekk mhm. je pense mhm. Mhm. Euh, mais nag ci ban preuve ci vidéo boobu lañ mën a inculper wax la vu wanewul kanamam mais yaram bi feeñ na yaram bi feeñ te am na fu mu wax fu mu fu moom waa ji fu mu envoyé audio wane ne li ma bëggoon am naa ko euh, xale bi mënatumaa jaay lu ma saf xale bi lu mu ko mën a jaay xale 13 lu mu mën a jaay magum 30 ans mën naa nekk nag mën naa ne xale 13 ans. mën naa ne débat ubbi na. 88 628 89 90 ñu bës 2. 88 628 28 28 ñu bës 2. 33 841 20 69 ñu bës 2 maam Sidi euh, képp ku ñëw rek dañu ko dugal li laay war a suul yi ndax ñu mën a am euh, xalaatu ñeneen ñi nga xam ni ñu ngi ci seen kanamu écran di euh, suivre ba may bàyyi rek sa sa sa argument boobu nga nga nga gën ko yëkkati. parce que da nga ne. 13 ans. waaw nan la mën a jaayee affaire. góor gu am 30 ans. xale 13 ans xam nga ñaar at la. ñaar ban année la judd Fall. yàggul. dans les 2007 côté yooyu. xaw ma 2008 non 2009. 2009 2009 yàggul mais 2009. yàggul non 2015 ba 2015 2016. yàggul. non 2015 la ah. fukki at ak ñett la. waaw 2015 mais xam nga la waaw bëkk démb la normalement côté non non du 2018 parce que 2018 2019 2020 mooy tax ay 2013 2014 lay doon lay doon waaw environ côté boobu lay doon parce que parce que parce que dinaa ak 2000 ñaata la ak déjà 2010 ak 2022 bii ñu nekk rek 12 ans la xam nga nooy def da ngay jël la kon 2010 2009 la 2009 la côté yooyu la 2009 la lay doon waaw 2009 démb démb la mais xale 2009. xam nga lu tax ma wax loolu xam nga lu tax ma wax loolu. bëri na waaub xale bu juddu 2009 dañoo ub nañuy làmb. ah 2009. ub nañuy làmb. non dañoo wallamiku. ub nañu làmb xale yu ndaw yi. Ah. ub nañuy làmb. problème mooy dañoo teel bëgg affaire sexe ngeen baal ma. dëgg la dañoo teel a foowee ndoxaan. dëgg la gis mantu. génération bu njëkk ba dañ daan fooyee ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay langa buri ay langa buri est-ce que comprendre dañ daan fooyee ñeneen ñi di di fooye ay sabaraki foowu foowu foowu foowu doomu doomi sagaraki yaay doom ji may papa ji may papa ji yooyu lañ daan fooyee mais xale yi palais de justice suñuy temps waaw wala jërëjëf est-ce que comprendre ak planning. jërëjëf planning yooyu lañ daan fooyee planning ak ay tam ak tam ak tam tëb élastique. tëb élastique amatul tiire. ak ak kii ndóof ndax doorante bal bal tànks bi ndóof ndóof c'est-à-dire que yooyu la gars yi daan mais léegi xale yii xale yii li tax man la ub nañuy laam mooy dañoo teel a bëgg affaire affaire u ndoxaan dañoo teel a bëgg diw dafa may doxaan boo dee xool sax bu ñu dee dem école lu ñu ëpp lu ñuy waxtaane du ay devoir non mais ay affaire ndoxaanante la ñu la la ñu la ñu mais xale 13 war na farantu xale bu 13 ans ndax war na. farantu non warut a farantu. waaw non warut maanaam xale 15 ans sax warut a farantu. xale 15 ans. xale si waxuma la waxuma la à l'extérieur mais réew mii di Sénégal. sans dépense jamono ji maanaam xale bu am 18 ans xale bu jigéen sax warut a farantu ndax nit day ñu naan la am na 18 ans. nga xool ni muy xale bu ndaw. dëgg la c'est-à-dire am na 18 ans. ci ay ma ne at dañ koy bàyyi. jërëjëf jox ko année de merci beaucoup. yenn saa yi nga gis ne fii ci réewum Sénégal xale boo am 18 ans sa warut a faramtoo. dëgg la te pour de extérieur dañ naan majeur na. Mhm. parce que am nga 18 ans waaye sam xel matul 18 ans. Mhm. maanaam mënta jëf jëf ku am 18 ans. Mhm. mais xale yii xale yii jàpp jàpp 15 ans jëm jëm 18 ans ñoo gën a man waxtaane waxtaanu jigéen ki góor. ñoo boo dee xool sax ci seen i ci seen i statut ci seen TikTok dañuy wane ni cest à ay grande dame lañu. la. dañuy wane ni ay grandes dames lañu buñ dee buñ dee façon bi ñuy waxee façon bi ñuy doxee man jis naa benn xale boo xam ne maa tiit ci moom te pourtant est ce na 13 ans mais bu solo ba takki verre da ngay defe ni mag la. Mhm. parce que loolu lay incarné. léegi ne boo tasanteeg man moo xam ne moom it xel ma woyul wala mag moo xam ne xeebul dara c'est-à-dire que dalay dalay dalay fooye. Ah, dalay léegi nag fooye googu mu lay fooye problème mooy ndoxaan gu yàqu la fay am. Mhm. ndoxaan gu yàqu lay am parce que dafa am. problème yoo xam ne du ñu xool njëlbéen nga lu ko waral. mais dañ parce que posé naa ko question ni ko ndax ñoom ñaar dañ daan génn mu ne moom wóoru ko gis nga bëri na ndoxaan gu yàqul la dem a dem a dem dem ba parents yi jot ci. xale ba tiit xale bi tiit. mais mais mais man jàpp naa ne Fall. Mhm. le fait que mu mu ko. waaw viol bi waaw. pare jox leen vidéo bi. waaw ba pare di leen di audio di leen wax ne la ma bëggoon def naa ko. je pense que vengeance da cee am. da cee am du au moment où nag euh, du moment où vengeance am na ci laaj bi taxaw dëgg-dëgg mooy xale boobu am 13 ans ak mag bi am 30 ans lan la seqoon. merci beaucoup xam nga lu ñu seqoon ba mag bi bëgg venger wu ci xale bi am na benn baat boo xam ne war na ne am na lu mu seqoon mooy mënatumaa jaay lu ma saf baatu mënatumaa jaay lu ma saf. lan la doon jaay lu ñu seq waaw kii lan la la doon jaay mu saf la. ba tey nga am vidéo am yegg ci kawam ba parents yi dem ci gendarmerie tey nga ni mënatumaa laa jaayul ma sax mooy am ngeen loo leen seexoon mais baadoola la njaga waaw baadoola la ku xamadi la mooy ku góor ki mhm. parce que xamadi ak ñaat responsabilité njaga bu nit ñaan yàlla am jot gis nga bari na yu am ci jamono am jotu ko indi dëgg te ndaw li tam am fukki at ak ñett nit ñi nañu bàyyi xel ni mantu nit du muus lu romb ay atam na sa na sa jëmu toll nu ko neex mais say at ñu mu toll mënoo muus ba muus lu romb loolu boo gisee même sunu ay wayjur ba fii ñu toll ci ay at ba sunu wayjur yi dee dund ba tey du ñu jàpp ñun ay boroomi kër lañu xam nga lan la ñu wayjur yi di xoolee sama doom la rek bëtu sama doom boobu ni nga judde woon noonu lan lay xoole ngay màgg di bi jaaw bay màgget yaay boo toogee ci wetam liir la lay jàppee waan tey lan la xale boobu war a ak waa ji ba li mu bëggoon mu am ça veut dire ko kon am na communication bu xale bi rejeté ci moom. dëgg mooy benn. Mhm. ñëw na di ko bëgg si. wala mu séq xale bi vocalu mbëggeel vocal yooyu dem ba def ko xale moom. te mooy mbëggeel amul logique mbëggeel mooy fekk paa bu am 47 ans nga takk xale bu am 16 ans mu naan la bébé nga naan ko bébé loolu mbëggeel doo nga ko ak xol <laughs> xolu xol am 47 ans tubaab ba nee na de 7 à 77 ans waaw walaay dëgg la âge na compte pas c'est l'amour qui compte ah waaw loolu la tubaab wax njaga walaay mantu tey am na lu xale bi wax am na lu xale bi wax mhm. diggante moom ak waa ji wala am na chantage bu doxoon seen diggante bu waa ji indi retouram parce que li tax li ma bëggoon am naa ko am na communication bu jiitu. dëgg la mooy benn xale bi toroxaloon na ko. ñaar am na wax yu ñu seqoon ñoom ñaar xale bi jël message waa ji si boo moytuwul transféré ko yeneen nit parce que boo gisee communication bi ni mu wasee ni mu yaatoo li ma bëggoon am naa ko rek mooy ñàkkul ni ndaw si dafa déglu vocal Oustaz Mouhamed Mbaye wala mu jël vocal am yónnee ko njaga ak mantu mhm. Mouhamed mbay ni dinaa fayu mhm. donc euh, ñoo bokk fi ñuy waxee mooy Euh, xale bi victime la. victime de viol mais euh, lan la def ci suuf ba tax ñu agsi fii euh, lan la bi nag dindiwul en dara li ñu ko def tooñ bi muy viol bi mais soo ko xamee dina mën a tax nga mën a artu yeneen yaay yi seetaan ngir ñu mën a wax ak seen doom doom yi seetaan mën a xam ne attention lii waruma amoon naa. balaa may fàtte njaga parce que dindiwul dara ci viol bi dindiwul ci dara. dindiwul dara xam nga du fait dañ ko tooñ mais buñ ko xamee. dina mën a sauver ñeneen ñoo xam ne àgguñu foofu 13 ans warta farantu. ci sama gis-gis warta farantu. ci sama gis-gis keroog benn ñaari xale yu góor ak jigéen ci benn terrasse. waaw am yu ma dama cof rek dama cof seetaanu ma parce que man na propos yoo xam ne sincèrement mm-hmm. du ma ko yeggalee mm-hmm. mais ni ngay seet ni ngay dégloo dañu ne. ñoom ñaar dañoo bëggante. loolu laa comprendre. 16 euh, diggante 16 ak 17 ans la su ma comprendre mm-hmm. mais ñaari parti yëpp da ngay gis ne dañuy défendre mbëggeelu ñaari âge yooyu noonu mm-hmm. nga gis góor gu am âge yooyu di brutaliser beneen moroomu xaleem yéen ngeen ñëw te teesu bëggante mais ñaari xale yi toll noonu fan la ñu mën a xamee mbëggeel gis mbëggeel di ko dundu ba ay dóorante di ci am mais mais mais ak. foofu bi ma ci déggante communication papa yi xale bu góor walaay fu ñu jëm. bi ma ci déggee ba pare ay parents ñoo cautionné loolu. non kay man dama gis ne communication papa yi xale bu góor bi man damaa rus. lu mu wax. parce que amul argument bu bu comme ça. du du waxu kilifa daal dëgërul dëgërul ba pare ni mu waxee du waxu kilifa. mer naa ci ma xam ne bu ma ko toppee dama koy rey ma ne naa bàyyi ba giif wax ak moom ça veut dire que waxam moo terre à terre amul waxu benn kàddu boo ci mën a jàpp nga xool donc loolu ñu def xale yi amuñ ca benn responsabilité. déedéet ah. loolu loolu amuñu mais li wax léegi. waaw baal ba balaa ma koy fàtte mantu gis nga coow loo gis. Mhm. acte coow li ngay xool ni coow li est-ce que du nanga ba ko waral parce que adduna lu bari njortu la benn waa ji mën na ñàkk fayda ba photo ay awraam yónnee xale bi. parce que boo xoolee wax ji ni mu teeree ci wàllu viol rek y a quelque chose que li ma bëggoon am naa ko mooy bu wanee li li mu am ci man ma wane li mu am ci moom. dégg naa la wax dégg nga mhm. mooy benn waa ji ñàkk na fayda ba wane ci awraam lu xale bi teg bët ñàkkul xale bi am kum ko wan. man xam nga la laay benn question laa lay posé. di ko posé Sénégalais yi maanaam euh, di def rapport wala jigéen taxaw wala góor taxaw ban plaisir moo nekk ci di ko vidéo maanaam plaisir bo ban plaisir a nekk daal ci wàllu vidéo ay sexe ak yooyu dafa am bànneex bu si nekk. parce que xam nga lu tax ah. peut-être man jaaxal na ma daal. roy dàq peut-être boo tàppee internet boo amee téléphone. tey loo bëgg a tàppe mën nga ko tàppe ci internet bi yaa ngi seetaan li tubaab bi di def te tubaab bi li ñuy def du ñaar ñu ko séq ñoo koy caméra nit moo leen di fay taxaw caméral ko caméral boppam léegi comme ñaar ñi koy def amuñu ku leen caméral faw ñu def yëppi tubaab caméral seen bopp njaga mais léegi dañoo dem ba ñun ñun oh. ñii ñun Sénégal gi dañoo am suñu site bopp boo xam ne la suñu yëf rek lañ fay dugal lañ fay dugal ah. suñu ah, eh, kan moo fa nekk bëgguma cité tur site bi ah, mais ñan ñoo fa nekk ñu dul ñun ñoo fa nekk ñu koy def mais kan moo koy def ku dul ñun parce que loolu di la wan ne waaw mais bu feeñoon luy feeñ loolu da lay wan ne da lay wan ñun am nañu tendance di def lu bon ba pare di ko filmer am nañu tendance bi am nañu tendance di vidéo mais même bu nekkul sax euh, diggante farak gel mais dañuy gis ku jëkkëram tukki lu yàgg jël vidéo def na ko sul doon envoyé ko jabaram jabar ji tamit jël vidéo def na ko sul doon envoyé jëkkëram ëllëg téléphone bi réer wala ñu divorcé ëllëg téléphone bi amul woon code gars yi dem génn say vidéo tasaare wala ëllëg ñu divorcé mu bëgg laa yàq jël vidéo yi teg ko ci place publique bi am na ñoo xam ne noonu la ñuy vengé woo nga am sa sa sa far génn ak moom ngeen séq naka sulu noonu vidéonte mu pare affaire bi mu bëgg mu bëgg laa yàq dem jël affaire bi teg ko ci place publique bi mbala yow ci boppam mu bëgg ci xaalis dem jaay ko ay site léppañ ci léppañ ci wax naa ko ci tiktok bi de léppañ ci nee naa leen risque pire passé di bëggante koo xamul ba xam di ngeen sëy mu ruux la ba nga yónnee ko photo yoo def naka sudul noonu mm. yow sa conscience boo tëddee wax naa ko ci sama TikTok man leen xaw ma ban dof ban dof mooy yónnee ay photom ni ko ndeyam jure woon ci góor gum sëyalul nga xam ne jamono day dox kenn xamul di ngeen sëy wala du ngeen sëy mu commencé de la chantage te mantu gis nga nit ku ne war ngaa garder sa personnalité ak sa dignité ba loola nit di waajo xor na ko waay ñuy jaay ñu nuisette yi mm. xale yi célibataire ñoo koy jeexal ñoo koy jënd ndax vidéo photo xam nga bu njëkk mantu. aywa taas foo ne. mantu gis nga jamono jamono jamono jii na parents yi taxawaat. def rôle parent. dafa am benn baat booy wax boo boo mës a wax yàgg na ca ba ñuy tàmbali émission bi sama doom nit may na ko fukki dërëm foo ma tàngal waaye dama taxaw dóor ko dem ba ca kooku ni ko bu ma ko mayati. Mm-hmm. gis nga dafa am góor ñoo xam ni ni ni ni di wax ni man maa fee ma gënal doma daal. Mm-hmm. kii ni man yaasa moo ma gënal. nangam dafa am góor ñoo xam ni mantu ab ab ab feeñkatu télé leen gënal lu ñu mën a am ci àdduna. Mhm. du ñu investir lu dul ci faiblesse bi ñu am mooy kuy feeñ télé. dëgg la c'est vrai. am ñoo xam ni faiblesse bi ñu am mooy jigéen buy sol tenue. dëgg mhm. boobu lañu ñu amee. wax nga lu ma ragal. yaa ngi dégg. <laughs> ak ma koo ragal. am ñoo xam ni. avocat am am ñoo xam ne ay avocat. <laughs> lañ soxla. ba booba am ñoo xam ne enseignante. am ñoo xam ne ay enseignante. moom a gën a avocat daal sa enseignante nag moom boo ko amee. am nga ah! day tëdd di waxtu rek. moom kay na nga mën a wax nag. waaye enseignante. na a wax ak étudiante yi leen takk. waaw am ñoo xam ne ay monteuse comme Didi. comme Didi am na ñoo xam ne ay monteuse dañu moom dañuy mën a jënd ay mais dafa am dafa am ay góor ñoo xam ne góor yi ñu am mooy xale yu ndaw yi. les pédophiles ay xale yu ndaw lañu la man la ñu am. la ñuy woowee les pédophiles. maanaam li ñu am lépp mën nañ ko inverser xam nga bu njëkk parents yi dañ daan danga nga daan dañ la daan eh, seen doom dañ daan bàyyi xel seen doom ci alal gu ñu yor nga def enquête mhm. ci alal gi fan la ko jëlee mhm. mais léegi xal ki lay doxaan te ngeen bokku kër wala ngeen di doxaan te ngeen bokku koñ xaalis bi ci bitig bi la koy bàyyi dëgg la yow ngay soxla dem di jënd ji ci bitig ba dëgg la mu lay nax mu lay nax mhm. léegi mu parents yi dootuñu xool ni yor nga alal mais fekk na moom ci bit borom bitig ba la la tayleel sama jarbaat bu ñëwee na ko jox nangam. wala mu wutal la fa. kaye ab kaye. léegi nag lan moo cay am mooy doo fekke tàmmalib xeex mais feew cooki bi ngay fekke mooy bu bu bu amee wala dara am ja te bu viol amee mooy dañuy fàtte xale bu ndaw bi la ñëpp dem di àndal. te duñu xool cosaanu histoire ba. wax naa mooy li mooy mooy li mooy li kii wax léegi. te léegi dafa jaaduwul li ko mant di waxee dafa jaaduwul ànduñu ci ci xale bu ndaw boo xam ni majooragul ngay génn nag moom moom it mooy jug ni day wuti ay ay ay ay far xanaa xamoo ni wàllu mbëggeel escalier la. day yéeg surtout si jigéen. da pare dorog la teg xam nga lu tax mooy da ngay bëgg sa moroom jigéen ñi ñi ñu ñu bëggantoon seen moroom yëpp deux ans trois ans dañ leen fay bàyyi. Mhm. dem xool ñu leen mat nag léegi ay deux ans ki trois ans. dëgg la. bu ñu demee deux ans ak trois ans dañu fay bàyyi ñi ñi leen mag deux ans ak trois ans dem ci commencé ci ñi leen magee cinq ans jëm kaw mhm. ndax garab ci kaw lay fekkante te màggu jigéen dafa gaaw léegi nag lan moo ciy des moom mooy sam xelum xale yow fooweetoo ay sagara ki papa ak yaay ki doom mais da ngay fooyee léegi sa sa moroom sa moroomu mag wala sa moroom sa moroomu bàyyi mhm. te jigéen dafa am loo xam ne jigéen bu xasee ba gis awrey góor te awre góor ba borom nëbbu ko amatul kersa déedéet amatul kersa. te nit du namm lu mu bëggul mantulaay. ak mu xamul te yaa de xale yoo xam ne. seeni propre nday ñoo leen def li ñu doon ñoo leen def li ñu doon. xam nga lu tax attention wallaahi ñoo leen def lu ñu doon parce que ñoo leen teg charge boo xam ne xale bi mënu ko mënu ko xale bu ndaw nga teg xale bu ndaw ak bi ci des nga saa yoree njaay demal jaay di tontoo diw demal jaay pap diw guddi yi day fëgg ci néeg nit ñi di jaay te bu jaayee da nga ko ciy tegal dafa am nooy doxalin charmel tontoo diw charmel tontoo faal jaga bu amee histoire rek mook jabaru faa Njaga la saa bu amee ah. histoire rek mook jabaru oustaz Mohamed Bay la saa bu amee histoire rek mook Mantulaay la te histoire yi du jógee lu dul sama jëkkër ngay nangu te yow xale bu ndaw nga dama goo fenn suñu waxee moom xale bi danaan dama jar waaw dama rafet dama jar ah. fekk jaroo rafetoo nit ñi dañ laa jàppee ab appa dañ lay appâté di indi objet la dañ lay jël jëfandikoo li ñu ci bëgg suñu paree ñu teg la léegi nag léegi nag yaay ya nga xam ne ñoo leen di encouragé yaay yi nga xam ne duñu leen wax dëgg yaay yi nga xam ne naan sama doom yi dafa am jom mu may fajal buumu gàcce te doom bi jàngkat day ah, jàng ah. wala doom bi day jàng métier amul dara loo xam ne mënoo ci teg loxo di ko àbb cent franc yaa ko jaay loo mënoo teg ci loxo ci ne xale bi lii lay liggéey mais xale bi buumu gàcce yi moom moo koy faj moo moo koy faj greffage bu cher mooy jënd yëre pochette am du tàqale xaalis day diwu ba nayi yow yaa ji loo soxla mu ni la am ñeneen lu ci kër gi lu ñu soxla ma papam lu mu soxla mu ni am mais xale boobu cherché wu leen à savoir fu mu xaalis mais da naan yàllaa ko teral boo a ngi koy dugal ci def baa te moom la sax am na ñoo xam ne pour ñu xoolal seen doom la ñuy maraanoon Assane maa ngi lay nuyu am na ñoo xam ne Mohamed buñ doon dem di ñaani ji mantulaay non bu dee dem di ñaani ji maam mii góor dañuy ànd ak seen doom ba pare sol ko ba mu defaru rek tag ñu la kaay ma may la ko de kii la sa moroom la commencé commencé wanteer seen te nga xam ni moom nijaayam la mantu njaga yi ci ëpp am na célibataire yoo xamante ne dañuy dëkk ci kër mën nañoo nekk célibataire boo xamante ni tey jii day jógee Thiès ñëw Dakar liggéey si wala mu jógee fenn liggéey si mais biir kër gi mu dëkk dafa nekk locataire bu fa nekkee locataire xale bu jigéen bi ci kër gi bu yaayu xale bu jigéen bi xamee ni waa ji xaw naa am njariñ dina koy imposer ba kaasu attaaya bi mooy fekk waa nekk néegam di ko ko yóbbul dëgg la waaw bu mel noonu attaaya tax mu ëmbal ko non mhm. yaa ngi koy fàttali waaw amoon nañ thème bi xale bi gis nga kon léegi nga tàmmal sa doom éducation boobu bi ci des mooy xale yi yor téléphone yëpp mantu am nañu collant cœur seen téléphone yi dès le début da ngay xool seen montage photo sax ñu jël cœur ak bisu dëgg la wala bisu doom ci boppam yow mi woy juróom rek waaw yow mi woy juróom xale bu ndaw juddoo góor numéro numéro boo enregistré def nga ci alliance foo statuer mon cœur mon amour rek yooyu rek bu ndaw wala xaar mantu ma bañee yooyu doom bu fekkente ni mënta ñàkk mu yor téléphone war ngay vérifier téléphone am foo toll war ngaa xam ko téléphone am war ngaa vérifier xool sa doom ñan ak ñan ak ñan lay waxal kii kan la kii lu muy def sa téléphone nangam mais doo bàyyi doom yalax mu nekk ci lu ko neex gis nga Malcom di tooji wax na léegi lu solo gis nga euh, acte bi coow li la ñuy def de acte bi coow li di nga dugg TikTok waaw moom laa yaa ngi dugg TikTok waaw gis naa leen xool xale yi gis naa leen mais ñaari benn benn bin bin bu sew bi ñuy teg seen waaw wallaahi di ko wane temps am na benn bu jël xaw ma nan lëmbalal dañ def ba wane ginnaaw waaw waaw waaw waaw ñun ñoo koy def man laa du ma xam ne man damay dugg ci TikTok man xoolal man man sama loxo daa gaaw bu ma bëggee xool lu ma intéressé lu bu ma rombee documentaire gaynde di lekk lu ma neexul mën naa yàq sama journée damay jàll bu ma déggee sëriñ bi joxe ay ay ay ay ay nangam te secret buñ bu nga koy wane ci TikTok romb naa la bu déggee sëriñ di wa naa dàq seet naa la yooyu yëpp du ma ko xool man daal naa xool benn activité bu ma neex wala bu ma itteel du ma xool lu ñàkk fayda ci TikTok bi parce que temps dafa cher mais dama ni la mantu li njëkk a wax léegi bàyyiwaat ko xel mooy waa ji osé bu mu osé xam nga viol nit xam kaa bi ni mu toll xam atte bi ni mu toll xam ni prison méttee nga mën a jël engagement wu vidéo yow xale bu am 13 ans war ngaa xam ni kii du mag nga mën a engagé wu génn vidéo boobu am na lu ne ci ginnaaw lu xale bi santage wala fu ngeen jaar yéen ñaar nga xam ne tey jii li la xale bi amal am na sa foto boo xamante ni sa daraa ngi feeñ moo xam sa sexe wala nangam léegi pour nga fayu li tax li nga bëggoon am nga ko mooy yaa ngi am looy garde loo xamante ni bis bu xale bi génnee nga génne. dëgg la te man d'accord viol waruñu ko def xale. mais foofu tamit euh, euh, benn euh, point dafay daal di taxaw lan moo tax moom mu génnee te xale bi génneewul. waaw mooy tiit gi. mantu olof nee na parce que normalement bu doon loola rek dafa doon xaar xale bi génne wala mu chantage xale bi mais li mu génne est nga baatuwaa ji li ma bëggoon am naa ko foog ngay xool sorti dém bi wax ji lan la mantu parfois Mohamed yenn saa yi sa doo am vidéo moo yow yaay am vidéo bi mhm. dafa am ñoo xam ni ci seeni muus te dañuy mujj Euh, dugg ci kàmb dugg ci kàmb waaw seen muusa leen di wër seen muusa leen di wër olof nee na koy daaxante ak saxel doon na bëtu fu baax baax waaw dafa am ñoo xam ne seen calcul bu la ñuy dem a dem ba lab mhm. am ñoo xam ne seen calcul mantu euh, système bi am léegi ci ginnaaw euh, réseaux sociaux yi mooy profilu profilu xale bu jigéen la ñuy jël waxtaan ak yow ba def loola taatu neen ba pare chantage la ñàkk fayda rek dem rek am na paa boo xam ne mu ngi expliqué moom Eh, niñ ko ni ko waa ji di chantage. Eh, parfois sax bu dee Facebook lañ lay defal montage. montage lay doon. sa photo la ñuy jël monté ci. voilà. Mhm. léegi nag imagineel ñu baree baree baree bare baree bari nga nekk ci ginnaaw réseaux sociaux yi dama dema dem ba bari fataatu neen ñu filmer la di la laaj alal gu bari. xale yi tamit gis nga kii ku góor a ko def gis nga xale yi ngay wax xale yi 13 ans yi jàpp 17 ans yi wallahi ñoom ñoo ngi sekk ak ay góor yoo xam ne ñoo ngi filmer film yii vidéo vidéo yu baari yooyu dégg ay xale yoo ko def ñoom ñooy làqatu ci ci appartement filmer seen bopp la xewoon mbuur ay xale. xale yi ndaw ndeysaan. Euh, cité cité cité bii la fi xewoon. Mm-hmm. ay xale cest di dire que ay xale souvent ñooy dajaloo def jëfi xale ba pare filmer ko partager ko di ko partageante ba adduna bi wër leen mais damay wax ni waajur wu ne. man daal jàpp naa ni ba moo kooba juddoo. waaw moo kooba ak responsabilité moom kooba ak kaa ñoo juddoondoo ci dëkk bi mantu lu ci xale yi loo leen wax te neewoo leen doo kooba rek waxoo leen déedéet way jur yee leen tooñ mantu way jur bu demee moom kooba bu tooyee seen i parents am na xale yoo xam ne seeni parent boo leen ni woon xale bii kooba la yow la ñuy porter plainte mantu moom laa lay wax xam nga yaa ngi wax ni yi nga xam ne nit mayul sa doom fukki dërëm nga ñëw gis fukki dërëm yi ci loxoom àndoo moom ni ko foo ko jëlee waaw pourquoi que ni nga sévère ci sa doom jooju way jur yëpp mënuñoo sévère am nañu sévère lool waaye xale yi dañoo ëpp xel seeni waajur xale yi li ñuy lijjanti si téléphone yow mënoo ko yow sa téléphone bu ah. cañee wala mu am problème xale bu ndaw ngay dem def ko deux visages la xale yi am loolu leer a xam bi ci kër gi ak bi ci mbedd bi am na koo xam ne am na koo xam li muy wane ci kër gi wane ko ci mbedd mi sama yaay sama benn yaay nee woon na ma man damay bàyyi ba samay doom jàngi wala ba nga xam ne jour boo xam ne nekkuñu fi ma yónni leen yónni bu sori nee na seen armoire yi laay fexe ubbi damay fexe na am seen i waaw waaw nee na ni jàngee yëpp laay vérifié wallaay dëgg la gis nga bu ñu vérifié armoire xale yi bu ñu di vérifié fa ñu nekkul seen saag yi cigarette yi dina génn chicha yi dina génn assi ah vol yi assi ah am na benn yaay boo xam ne fan yee xaw may sant xaw ma def ne ma ba ma vérifié ba ma gisee chicha ci sama armoire donc damaa tiit wallaay dëgg la xale bu góor boo xam ne xale bu tuuti la est-ce que am na 13 ans. fu mu koy jëlee ba mu ko laajee daf ne ko ñu nag samay gaañ ñoo ko di sa jënd ko ñaata ngeen ko jëndee mu ne 30 000 xamoo dëgg la xamoo du dëgg xamoo maanaam pour vous diir que ni xale yi am nañ fitul ne léegi parents yi ne il faut ñuy bette dañ lay boo bàyyee ba nu nga vérifier doo gis parce que mm. saake dañ ko yóbbaale mm. mais nañ fa nekk te duñ ko foog nga yónni leen du sori daaj ji nag mm-hmm. di xool benn par benn xale yi ñi ngi toj réew mi gis nga visage bi ñu am ci kër gi mantu ak bi ci mbedd yu bokkul am na waajur woo xam ne boo ñëwee ak ci doomam da koy bett waaw parce que du la gëm doomam jàpp na melul noonu mhm. waaye am na waajur woo xam ne xam na jikkoy doomam waaw mhm. boo moom mooy jëlal paar doomam bëri na am na koo xam ne mbanum doomam waajuram bu jigéen ci la da cee participer waaw waajuram moo ko jàppale waajuram moo ko jàppale ci mbanum jigéen parce que am na sa doom melokaan wala comportement bu muy yor te nga wóor ni comportement bi moom ak atam da koy wàññi da ngay loo compteur ne ko xale nga xale nga waaye am na nga xam ne seen doom bu bëggee def jëfi xale sax ñu naan ko lii mooy lan ngay mel ni bébé doo def nangam xoolal doomu diw ji xoolal doomu diw ji ni mu civilisé ah, ni mu nekkee nit xoolal bu génnee solu koñ bi ñëpp bëgg ko ngay sol sa sagar yi kenn xamulooy looy ndox sa tisetu Macky Sall bi nga ñuy bëgg a rey xool ko vaccin bi carax yi nga xamante kañ la ba may sëy la ma ko sa baay joxoon moom laa dencoon ci rondal gi nga génn ko sol xoolal xoolal diw bu ko defee xoolal diw xoolal sa nawle boobu hmm. gis nga man xam nga njaq. Mm-hmm. wala xamoo njaq. mooy ndaalu ndaw mooy ndaalu ndaw bàyyi su waroon naa dugg. gis nga mag ñi démb dañ daan pare seen njaboot ak njaq gis nga njaq njaq njaq boobu ñu daan wax naan ndox mu sedd lay génne. mag ñi dañoo amoon démb. mantu daan jël am yu ñu def sotti ko ci njaq li di nga gis aawo ñaareel ñetteel ñeenteel ci benn kër doo ci xam kan la aawo bi jur ak kan la ñaareel bi jur que kër njaboot dañ koy téye mais léegi kër yëpp kenn ku ne bitel eh, ci bitel ngay naan ci frigo bi lay nekk mag ñi gis nga mant doom ak soxna boo ko préparé wul bu la yàlla dimbaliwul foo jaar nga am ci la na xari ndax doomu adama boo gis dégg nga yàlla li mu wax ci alxuraan innaka laa di man ahbabta walakinna laa yahdi man yasha yàlla nee na mën ngaa doon jàmbaar lool waaye man yàlla maay jubal ku ma neex mën ngaa baax mën ngaa yiw mën ngay julli ji ci jumaa ji fajar baggee soxna si foo ko fekk si du sigg waaye seen doom ñoo rek doon safaan dëgg la léeg-léeg yàlla dina rus famille boo xamante ne danaan ñaar ñi ni ñu baaxee ma xam ci kanam ni bu ma leen mayee doom kat doom ji nii lay mel day jar yàlla du leen ko may bari na jigéen ju ñuy xas ci mënta am doom mënta am doom fekk coobare yàlla la parce que bu leen mayee doom rek gàcce mën na leen a rey mu obligé dencal leen ko parce que day xam ni couple bi ni mu rafetee doom ji war a judd nii la war a mel ala kulli xaalin du ko may dal na ma nu mu tudd Mariama ba muy jure Isa lan nag lan ak lan ak lan la am ci tuuma te bi nu koy tuuma di ko xas danaan ko ni sa baay baaxee ak ni sa yaay baaxe yow Mariama yaa mën a jur doom bu yàlla wax la wala na Isa fu Mariama jëm tey jii mantu taxawaay boobu way jur yi amoon daan ñaanlu ci seen njaboot njaga daan noot seen ay njaboot di leen jox ñuy di jël xorom bi ci kër gi di am yuñ ciy tari di ko teg ñu koy xoromee gis nga mag ñi dañ daan am mbuusu xorom bu guddee ñu tuddee ko saf cin mag ñi daan ko léemu gis nga buñ ko musaan léemu mantu teg ko ci waañ bi tant que xorom soosu ñu ngi koy xoromee ci waan ci ci ci ci togg gi ci kër gi doo dégg benn bruit ci biir kër gi ñoom ñëpp benn yaru lañu ñu am néew na njaga jamono jooju nga daan dégg ku nu ëmbal néew na jamono jooju nga daan dégg viol parce que boobu mag ñi dañoo yaroon seen ay doom teg leen ci logique yu wóor a wóor léegi nag doomi aj oh juddu na jardin way nangam nangam jóge na fa dem na fii dem na fii éducation bi muy amee automatiquement li nga wax mooy dëgg man sama doom Ahmada rek boo ko joxoon sama téléphone tey mu ibbi sama code baax ma ni la mhm. léegi bu njëkkoon faal mhm. ñun buñ doon jàng dañu lay jéem a xool école boo xam ne daanoo jël oto waaw waaye léegi ku mhm. nekk da nga xeeb école ba sa koñ sa koñ collège ba sa koñ lycée ba sa koñ yow da ngay dëkk géejawaay mais sa doom bu jàngewul liberté six amoo am sa xol neexul da ngay dëkk euh, jëppal sa doom bu jàngewul caarooy sa xol neexul parce que yaa ngi xool école ba ñu ne école de luxe la waaw xale ba nag foofu tàmm na joxe jël xaalis di paas. waaw xale boo ko tàmmee jox xaalis muy paas bul xam fu muy teeri. déedéet du xale yëpp nag. du xale yëpp ñoo mel noonu mais le fait que koy yokk xaalis di paas rek te yow amoo pour di vérifier chaque jour fu muy dem rek xamoo xale yi nañ nu ñu miinee ruq ruqaani ci biir ñu leen ko temps xale yi emploi du temps bi dañ ko daan taf ci ci néeg bi incha allah euh, dañ lay jox emploi du temps boo xam ne école ba joxuñu la waaw mais problème mooy xale yi daan dem ci école am am am emploi du temps jënti Mohamed jënti ko ñëw ci kër gi merci Mohamed xale yi am numéro directeur bi wala gardien bi am na ñoo xam ne numéro gardien am am numéro bi njànga seen doom buy tar la ñuy woote ci téléphone fixe bi ni la diw àll euh, xale yi xale yi dañoo yorul tul xelum xale dan lay jaay lekk sa njëg problème mooy xale yi bëgg nañu restaurant waaw xale yi xale yi léegi yu chic nag xaw ma lu xew mais dañoo bëgg restaurant yu chic yi xale yi dañuy dañuy dañuy weccoonte portable ah. da ngay gis koo jëndal benn portable buy jar vingt mille francs da koy wot da koy da ko di ko dugal ak a génn ko dugal ak a génn ba yor iPhone loolu ma xale yëpp koo ci xool xale bu ndaw xam na iPhone sama ndékki laa doon dajale sama <laughs> te xoola buñ ko changé bu subaa dañuy dem jaay ko waaw ci ay yére ak ay kekk bagage yu soxla fas yéene tegaat ci table bi pour amaat beneen beneen wutaat téléphone maanaam dañuy dañuy changé dañuy changé xale boo demoon tey jii nii rek samedi wala dimanche. yaay boo ci wax mun la sama doom du ko samedi wala dimanche. bi rek. nga dem ma bañ a publicité. Euh, nga dem ci yenn millier yi yenn milliers yi fast food yi. xale yi ñoo fay ëpp mag ñi. nga dem ci yenn restaurant yi xale yi ñoo fay ëpp mag ñi léegi dañuy dajale pour dem restaurant. jour tabaski la dañuy dajale pour dem restaurant. dëgg la c'est-à-dire que. nit bu demee ba xeeb reeru ndeyam ak baayam. dem di reere ji restaurant c'est-à-dire kooku këf ko day yomb parce que li nga daan jënd di fayal sa bopp boo gisee ku la koy fayal adduna bu tukki la man mos naa toog benn xale mu ni ma sama suma banqué benn 1000 francs mën na maa andil weccet nan la weccet nan nan nga koy amee nan nan nan ngay amee weccet mu ne damay dem ci benn restaurant fay kafe 1000 francs su ma fayee kafe mille francs balaa kafe ngay jeex nit dina ma ko ñëw fayal ma fa lu ma reeree ba pare may ma xaalis ma ñibbi man sama benn copine wax na ma ko nee na ma ah? man nee na moom dafa toog benn salon coiffure mais dafa choqué wu nee na xale bi xale yi di waxtaane lu doy waar xale yoo ah? xam ne élève lañ mais dañoo am seen appartement bopp nee na duñ fa duñ fa indi xale maanaam appartement bugguñu fa xale mag rek moo fay ñëw responsabilité rek ay magum jëmm lañ fay indi ci appartement bi def leen leen def jox leen xaalis bu weex taal xale yi boo leen gisee dañuy changé ah. coiffure nu mu leen di def lu leen saf te ay élève mais man est-ce que seen i waajur njortu nañu sax ne xale yi nii lañ mel. li li Ndiaga wax xamul tax mu yéema dama ci gis ñaar yoo xamante ne maa ci sama bët benn bi jouru tabaski wax ma bañ a publicité station yi nga xamante ne boo fa demee day jaay ginaar yi voilà jërëjëf ginaar yu bees yi waaw bu xam nga li may laa doon bañ a tudd mantu comme nitu média xale yi lay xam gis nga mën naa taxaw lu ma 30 minutes di photo ak xale yi tellement que yi niy sol ni mu doyee dee ni mu mel te xale yi li Ndiaga di wax say doom ñoo leen di mag am na feneen foo xam ne bu may xëy si bu may xëy si fa jaar naan kafe ci yoonu corniche su géej bi pour mu bañ a publicité mais gis na guddi bu ma fa jaaree day jaay ay glace ak yooyu mais xale yi ni ñu toll da nga yéemu ci àdduna yàggul dara dugg naa ci semaine bi passé ay jàng gis nga ma dugg fu jaay ay ay ay ay ay naanukaay xale bu jigéen bi ak ay faram ak ay xaritam xoola ci biir foofu la defee anniversaire bi. ci restaurant la ñuy defee anniversaire léegi ci biir foofu la defee anniversaire mais xale bi dafa ne ma dafa ma gis a taf gémmiñ wu yaay oustaz Mouhamed Mbaye fekk maa ngi wax ak ndaw si nekk foofu mu daal ne ma dama bëgguñu photo ak li mu sol mu ngi ànd moom ñaari xaritam yu jigéen parce que ñetti góor la ñetti jigéen ma xam ne kon farama ngi ci mais à tout le temps que yooyu ñu góor ñi dañuy dañuy gis seen bopp parce que góor dafa fiir mais jigéen ñi ñooy jug ñëw photo ak nangam nangam man du xale bi lu toll fii la sol lu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt wallahi wal quran gis nga bi ñu photo ba génn kenn ki ni ma ci pourtant kii nii man ko amun ma xam nga diw man ko amun ma moo nekkoon borom këram bi mu nee ma nag xam nga diw moomu man ko xam naa diw moomu ma moo nekkoon borom këram taman fa ma jógee bàyyi naa fa diw moomu man xoolal diw moomu ndeysaan mu ngi doxal wàllu yàllaam xoolal kii tey delluwaat na ginnaaw xale yu ndaw laa ko gis mu bokkal ci benn lekkukaay boo xamante ne anniversaire dafay defee ñoom seen anniversaire yëpp ci restaurant lañ koy defee léegi personne après jeex na anniversaire yëpp bi may ñibbi ma wàcce leen Thiès may ñibbi man bi may ñibbi may xalaat ci loolu ma ne xoolal kii te yàlla defoon na ko au moins que mu yor jikkooy bëy jikkooy bëy mooy bëy dafa am kilifa foo ko mënti romb dañ koy takk mhm. bu rëbbkat dee rëbb ak lu mënti am ak quel que soit alpha sañ ta jam bëy mais mu ngi dem ba ci àll bi di diiri benn kéwal te kéwal ak bëy dañoo xaw a nduroo différence bi mooy li bëy am kilifa bañ takk ko ci buntu kër gi di ko fa fekk di ko jox ngooñ moom la moom la kéwal amul ma ne xoole fi mu toll nii ay xale yu ndaw ay moroomam lay nekkal te habitude mooy maa ngi noos te Sénégal la noosam xam nga la la man benn bitil boisson bu ndaw ba li glace yi ma lay wax 1500 lay jar daanaka lépp lépp boo ko calculer du mat 5000 francs. xeebul mantu daal li may wax mooy xale yi nañu xam seen bopp te seen yaay bàyyi leen xel. dëgg nañu am fulla. la te seen xel di teey. dëgg la. mantu na xale yi xam seen bopp xam ne ñooy avenir u ëllëg. mantu bu njëkk yaay yi dañ daan dañ daan dañ daan dañ daan dugal sa nopp ni benn bis rek laa soxla ci yow mooy bis bi ñu lay may njëkkër bis boobu rek la yaay yi soxla woon ci. ñu ko bàyyee la réew mi toj. wallaahi bis bi bis bi yaay yi soxla woon mooy bisub laabaan bi képp la yaay yi soxla woon. ci seen doom sutura la ñu woote ak loo ma mën a may. ci àdduna wallaahi. kenn xamul kenn xamul. ak loo ma mën a may ñu danaan la sa doom loo ma mën a may andil ma alal indil ma ajjana benn bis laa soxla ci yow mooy bisub laabaan laa soxla ci yow. maire yi di ko def ci seen doom yi seen doom yi xam ni bis boobu kat intéressé na sama yaay. waaye léegi nii bari na yaay yoo xam ni. li leen gën a intéressé mooy fajal sama aayo ak noo ko mën a fajee baax na. parce que ñu ngi leen di ndax ci jaay heure boo. imagineel xale boo xam ne ko war a may xaalis nga di ko leb xaalis sa doom boo xam ni da nga ko war a may xaalis. waaw yow nga am yow yow mi yaayam dem di ko leb xaalis fan la koy jëli jee ku tollu ci jàng ku toll ci ñu di ko may. koo xam ne bu bu soxlaa coton da la ko war a bu soxlaa diw da ko war a laaj. yow yaay ji nga dem ba dem di ko di ko àbb. beneen bi nga tasante góor goo xam ne ku ñàkk personnalité ndax ñàkk personnalité mooy am na koo xam ne bu juumee yaa war a jubbante ba bu jaree nga jël yar duma ko waaye tey ngay dem de lëngoog moom ak mbëggeel ah nee nañ yàpp mbote mooy daas bu ñu mag waaw yàpp mbote baax ci xale ci ci mag loolu la ñuy wax nee yàpp mbote moo baax ci mooy daas bu ñu mag waaw ñoom loolu la ñuy wax waaye nag waxuñu waxuñu waxuñu nga dagg rënk de ak ñin ko sañ wax waaw kay loolu la ñuy wax de loolu la ñuy wax eh, yàpp mbote waaye bul dank bul dagg rënk de bàyyil mu ñoral boppam maa la wax loolu. <laughs> yaa ngi tey da ngeen maa def kaw kaw original tey. moom bu ngeen bëggee dégg dëgg. ay waay ku ci moytuwul adage boobu moytu. na si nga jamono dafa teel a def xale yi ay mag. Mhm. jamono jamono dafa teel a def xale yi ay mag. Mhm. ndax yéeri yéeri na. ah yéeri dafa yomb. Ah, euh, wàllu maquillage dafa yomb. bu njëkk pour nga maquiller maquiller bu rafet da nga daan dem ba salon waaye léegi xale yi ñoo dàq maquiller ñi. ñi liggéey ci wàllu maquillage. ñoo dàq létt. ñoo di sa comprendre. bu njëkk da nga daan léttu pour mën a doon mag léegi da koy këppoo moo ngi sa biir néeg nga génn mel mel na nga war a mel nga tasanteeg mag mu ñàkk fayda te amul xel da utiliser da nga naan da nga ñaar rek la lay utiliser mooy da utiliser ci kaddu kaddu goo xam ne moo mag sa cerveau wala mu utiliser la ci ci alal ak sa yaay waay waay waay ku mag sa sa yaay ci communication da nga ko mën a jaaxal jaga xoolal sinap yu bees yi xale yi ñoo la koy gën a xam loolu neexee nga reeloo ko nga ko ah defar ko ba mu rafet rafet rafet bu la neexee tey jii nga mel ni bëy mu ibbi sa kanam gi ba mel ni kanamu nag nga yónnee ko góor mant lu ne nga koy jaral pour ñëw surtout jamono yi nga xam ne lu nekk ngi lu nekk ngi caméra fu nekk moo xam ay verre yooyu takk gars yi verre yaa ngi caméra léegi place yaa ngi caméra yooyu yëpp tey nga bëgg ko dajale accident yi xew ci réew mi ngay xool ba dugg ci kàmb mais del xool plus tard que nga coow lii indi ñu tey ngay gën a dem ngay gën a xam ne am na cause bu nekkoon ci seen ginnaaw lu tax waa ji mën a osé xale bu am 13 ans nga mën ko violer tourner jël vidéo boobu génn ko am na lu newoon seen ginnaaw doy na waar mu ngoog suba incha dinañ ko continuer Assane Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax pompiste sama sama xarit euh, sama partenaire bëgg ma lool maa ngi lay nuyu di leen jaajëfal ba suba incha allah ci beneen waxtaane ko